bi ñu ba léegi nous sommes le parti politique et je peux dire modestement que je suis le leader politique le plus diabolisé du Sénégal. man Sonko def nako man je bu ko nexe porté ma plainte dama gëm na ni dafa fen bu doon làmmeñ dong dong dong dong moy ree tay ji duma taxaw sen kanam kan la Mame ci république bi kan le Mame Mbaye une fois ci république bi sa yu toogee ci ci plateau télé mu ngi opposition bi sa yu toogee mu ngi premier ki nga xamni mom la gëna a ay mom lañ koy yoni lolo tax sa muy def ko ministre parce que première fois bi mu génn saaga Idrissa Seck ci lañ ko def ministre n'est-ce pas euh, liñu wax ni ci Mame Mbaye Niang wax ci Khalifa donc lan motax tax booba euh, di taxawaalu ba recevoir palais ba muy sax dégg na mom sax fof nak moy jaay neex mom moy ne man bëggutuma <laughs> damay démissionné ay ñom ak euh, Macky Sall wax ni que scandale boo xam ni euh, li ñu am ci li gën a xarañ ci Sénégal en matière de contrôle financier ñoo épinglé Prodac muy loo xam ni euh, euh, on va dire une structure boo xam sous le couvert Mame Niang mooy responsable c'est le responsable Mame Niang c'est lui le ministre c'est lui qui doit répondre de cet argent là maintenant Sénégal bi ñu nekk ni mooy Sénégal boo xam ni bu leen fàtte ni Khalifa Sall mu ngi en prison pour am joxuñu ko sax euh, c'est-à-dire qui de d'innocence présomption d'innocence Li ñu jàpp ci Mame Mbaye Niang jàpp ci Khalifa Sall te Khalifa Sall mu ngi prison ça fait presque un an plus d'un an c'est que l'homme dit du maa ko inventé Khalifa Sall mu ngi prison euh, li ñu wax nii ci Mame Mbaye Niang moom la ñu wax ci Khalifa donc lan moo tax booba tey euh, Mame Mbaye Niang di ba recevoir palais ba muy sax dégg naa moom sax foofu nag mooy jaay neex moom mooy ne man bëggatuma bëggatuma dootuma damay démissionné ay ñoom Marème Faye ak euh, Macky Sall di ko di ko raamal naan ko déet ëpp naa def doo fi jóge lii mooy Sénégal bi nga xam ni moo tax ñuy toog fii di wax lii moo tax ñu nangu ñu toog fii ba ñu ñuy saaga ñoom ñuy fay ay nit ñu ñuy saaga matin midi soir ñuy fay ay nit ñuy dugg suñu biir def semblant dañoo ànd ak ñun bu ñu tooxee ba ci tuuti tuuti ci kanam ngeen gis ma ñu wëlbati ko di ma saaga di poster samay waajur di poster samay doom ba noppi di leen gëmloo ni que ay nit ñu nekk suñu biir la déedéet ay nit ñu yónni la ñoom parce que seen liggéey dafa salté ci lépp amul benn côté boo xam ne ñoom respecté nañu doomu sénégalais yi maanaam mu am benn genre éthique bu ndaw sax boo xam ne dafay accompagner l'action de Macky Sall. kan la Mame Mbaye Niang bàyyi ci république bi kan la Mame Mbaye Niang jégal une fois ci république bi saa yu toogee ci ci plateau télé mu ngi saaga opposition bi saa yu toogee mu ngi saaga.

urgence bo c'est presque d'ordre sanitaire c'est-à-dire que se débarrasser de Macky Sall c'est même plus une question ni ay euh, élection démocratie mais c'est une question de salubrité publique vous débarrasser de Macky Sall et de ses ouailles c'est-à-dire ouailles c'est une question de salubrité publique maintenant rapport au premier première ligne ba dernière ligne bi ay malversation lañu japp ci est-ce que vous nañ ko sax na am ay na dem muy dem recevoir sinon ñu jubal ko directement ndungu ko directement rebeus parce que c'est comme ça que c'est ce que Macky a institué amul amul présomption d'innocence ñu dit nga avez ci biti défendre sa dañ lay preuve que parce que xew ci Sall dañ lay tëj ba nga woon sénégalais yi ne que tu n'es pas coupable loolu moo am taw Macky Sall bi bind yi tuuti na te sama bët yi léegi moom ah xeex bi yàq na samay bët léegi may leen ma ma liiral leen rapport bi euh, en en en résumé ngeen xool donc je vous lis juste la table de matière faites en sorte que ngeen jot rapport u inspection générale des finances concernant Mame Mbaye léegi dafa ne première ligne

avec tout ce que le Sénégal compte de talent et de tête grise de matière grise nous avons une équipe parce que nous avons ko nos définitions par le PRODAC d'exigence minimale au travers d'un cahier de charge cause d'une simple consolidation de l'offre commerciale de Green 2000 mais qui est censée représenter nos intérêts mais alors, le minimum, c'est-à-dire que tu prends même l'ouvrier qui n'a pas encore, qui n'a même pas le certificat. Il sait que s'il va négocier un contrat, euh, quelqu'un doit exécuter, exécuter euh, une, une euh, disons, un projet pour lui. Amna na lu exiger quand même Amna na lu ay anam yo xam tu ci lay négociation ne ko lii laa bëgg bu buntu la mu ne ko buntu bi damaa bëgg nga defal ma ko fer forgé wala damaa bëgg nga defal ko euh, wala bu dee photo yi nga ni ko simili cuir wala dama bëgg nga defal ma ko cuir mu nekk cuiru xaw ma vache wala bu chèvre xaw bu mu ciy doon mais rien du tout cahier de charge zéro mambay ñaa condom ak koppateem dem taxaw ànd ak gars ak ay ay complice am éventuellement lan la lay wax 29 milliards yi l'enquête pour établir comment ça a été utilisé c'est pas du ressort de Mambay Niang le juge va demander à celui qui a affirmé détenir

dafa am soxna am bàyyi bo xamni ne dafa jël effort pour yar ko pour mu am nu mu mel ci société bi am place bu mu taxawé ci société bi ñom moom mun na cautionner que Mame Mbaye par exemple ñu ne ko nit taxaw wax ko wax yu ñaaw sosal ko tumal ko. kan le Mame Mbaye Niang ci république bi kan le Mame Mbaye Niang jégal une fois ci république bi sa yu toogee ci ci plateau télé mu ngi saga opposition bi sa yu togué mu ngi saga premier ki nga xam ne moom la gën a ay moom lañ koy yónni looloo tax sax muy def ko ministre parce que première fois bi mu génn indi sa Seck ci lañ ko def ministre n'est-ce pas ay nit ñu ñu yónni la ñoom parce que seen liggéey dafa salte ci lépp amul benn côté boo xam ni ñoom respecté nañ doomu sénégalais yi lu ne dégg nañ ko lu ne su ma naroon def fii liste bi lu ne dégg nañ ko nañu façon nit bu ne ndax nag ku mus a jóg rek teg sa tànk ci dëgg ku ko mus a def jaar nga fii lu ne waxal nañ la ko waaye bu dee dëgg ngay woote mi ngi ci yow gannaaw yàlla kenn mënul tere nga yegg fi nga war a yegg. maa leen di yóbbu man prof EPS la maa leen di entraîné xoolal dama leen di def loo xam ne dama leen di entraîné def loo ay yoo xam ne daay laa moo raw torture te fekk duma leen dóor duma leen laal. sur le plan de la politique et c'est ça le premier désaccord idéologique ok sur le plan de la politique et c'est ça le premier désaccord idéologique ok ai dá, meu saco.